nee na waxtu weexat waaye nag jàmmale mas di woote nee na li nu wax tey jii jàmm jooja moom la mas di wax ban naka ba li nu dégg sànq ministère bi wax ka wax ju yàgg la moo ko waxoon nee na de ki la dab dog sa kurus période tasaaroo ngay for mu ne for bàyyi fa tàngooti ba neen kurus waxtu ne dem billaay sama borom moo ma yónni sama tarax laay lii moom laay waree àdduna di woo nit ñi jëmale ci yàlla waaye du ma war puso du yor puso ci sama loxo maanaam jàmm laay woote du ma yor puso ndax moo gën a tuuti si ngàndaay man bàyyi laay du ma dinaa woo àdduna bi yëpp. si jàmm man limaamu dammaloo nu ma gattaxa daaw kon nag kuy woote fitna bokkoot ci moom bokkoo sax sunu borom ndax sunu borom wax na ni. moytu leen. moytu leen fitna boo xam ni boo ngeen yewee du yem ci yéen rek dina dem fu ne lor nit ki nag balaa balaa jàmmal nit ñi na jàmmal boppam loolu moo nu manqué ñu ngi woo ñu si jàmm eh, waaye ka toog di woo ñu ni si jàmm jàmmalul boppam ñàkk jàmmal sa bopp. mooy cër yi yàlla tàggatal la nga war katee sant nga kay say mooy waaye jàmmaloo sa bopp waaye bay jàmmal keneen ndax mooy googu fa mu la jëmee fitna la fitna bu àdduna la ak fitna bu àllaaxira fitna bu àdduna weesuwul sama borom ba teg la nga yenn ko lim la teg ba yóbbu nag di woti ñi ni si jàmm nee juróomi mbir diine yàlla wàcce yëpp boole naka ci muy nu ñu ñongal suñuy bakken ñongal suñu diine ñongal suñuy xel ñongal suñu alal ñongal suñu deret am nañu sa dolli it ñongal suñuy der sang bi ne lii ku ci ne dañ la digal muy farata ci yow nga jàmmal leen mooy nga ñongal leen doo leen bàyyi moyal leen ñu topp seytaane topp bakken bu boobaa jàmmaloo sa bopp yow bay wax keneen nanu dem si jàmm nanu jàmmal seen bopp ba noppi di woo ci jàmm jàmmal seen bopp mooy la mu woote bérék sunu bakken nu bëree ak sunu bakken teg ka fi yàlla teg ba noppi di noora am jàmm ci ñun jàmmal seen njaboot jàmmal biti kon kalaawoo ñu ni si jàmm waaye nee na nga jàmmal sa bopp mooy nga ñogal sa bokkeen xeex ak moom bëreeg moom ba mel ni yàlla di ci door a wakkaneen réew mii nag jàmm rek lan fi oote waaye ku fi ooteet jàmmala sa bopp di ko door a woote melal ni nga war a mel di ko door a woote alaa kulli xaalin kuy oote fitna waaye sanga bi ne yàlla jàmmal la nee na loolu du jàmm de dala bëgg a jàpp dala bëgg a jàpp mbokk yi mooy yàlla yàlla di la xéewal ñoo yam ñag ñaar ñii bu nu ñëwee gane la bu leen ubbil moo di mooy yàlla gu dëkk ak xéewal gu dëkk nee na ñaar ñi bu ñu àndee bu leen dalal yaa ngi mooy yàlla waaye yaa ngi am xéewal ko ka seetlu sa bopp xamal ni sa benn tànk mi ci biir safara beneen bi moo ko war a fekkee sama borom tëral na la fiir ni ni fiiree janax min sama borom ba nee na xalsat naa leen taxañ kii oset noonu muy def loolu mooy istigraaj ndànk ndànk rek ba ma jàpp la yaa ngi mooy yàlla sa xéewal mi ngi yokk yaa ngi am ak wér yaa ngi am jàmm yaa ngi am lépp luy nuru jàmm kon nag nit ki bu seetee ci boppam ni dafa boole mooy yàlla ak alal wala xéewal rek na tiit te xam ni tegal nañ ko fiir te dinañ ko jàpp nag kon nag laay Mamadou Makhtar képp koo xam ni danga bëgg jàmm na nga ko liggéey réew mi nag képp ku fi woote jàmm ñëpp ànd ak yow ku kuy kuy woote lu dul jàmm. ñépp dañ la war a du mooy te li waroon sax mooy ñu xañ la jàmm ndax ku xañ ñi ni jàmm dañ la war a xañ jàmm ku xañ ñi ni jàmm fii ci àddina yàlla dina la xañ ëllëg ca àllaaxira wallaahi nee na dina la ko xañ na ne loolu nañ ko xam lu nit di yootu naka jaar ci jàmm lu nit bëgg tiit naka téye ci jàmm li mu bëgg a wax nag lu la yàlla dénk nga bëgg kaa téye bu ko téye ci fitna loo yóotu lu ne bëgg ko saa jot bu jaar ci fitna pour jot ko suuf si yàllaa ko bind rafetal ko sellal ko saxal fi jàmm ku ko jalkati nag yaakaar naa ni sóoru nga koo xam ni ku ko sóoru dul mooy rabbul alamin waaye sanga bi nee na loolu mooy lu doon wax bala noo ñaan dan ka ciy tofal waaye ñaan ci réew mi jàmm sang bu tedd bi alayhi salaatu na démb ni laa tatamannaw liqaa al adu wasalullah al aafiya bu kenn ci yéen bu kenn ci yéen bul xeeb bu kam noonu ba tax nga mébét di jàkkaarloog moom na ngeen ñaan yàlla jàmm loolu leer na message bu leer la bul xeeb noonu ba ni da jox rendez-vous ngeen war a jàkkaarloo mu ni nag di leen ñaan yàlla jàmm bu dee jàkkaarloo ngir yëkkati kàddu sunu boroom boo ci amee ndigal charte ya daje def ko jàmm ba taxaw ci suuf boo ci amul ndigal waaye bu ko def noonu moytu di comparer àddina ak diine nanu moytu di yamale kii àddina ak kii dox pour gétt yëkkati kàddu sunu borom nee na loolu ay njumte la déedéet ay njumte la yàlla daal i dox di yëkkati kàddoom saxal jàmm kooku la àndal àndul ak keneen ñun nag loolu la ñuy wax waxunu si ñii waxunu sa ñële ñu ne ñëpp ànd jàmmal seen bopp jàmmal seen njaboot jàmmal mbedd bi réew mi am jàmm réew mi nag nu ñaan nanu ñaan ni képp ku nu xañ jàmm yàlla na yàlla puus nga sori ndax ñu ñu dund si jàmm loolu rek mooy sunu ñaan te kenn nag mënu ko yàq nanu xam loolu te nu yóbbaale loolu rek mooy li nu bëgg la na nu yàlla defal jàmm fii nag jàmm laay la tudd afiyatulaahi mooy jàmm fii jàngale na lu bari jàmm rek moo fi mës di am jàmm jooju nag yàlla na fi sax sax si àddina bi sunu boroom ñu koy soor ci lépp ndax su suufam si ko yàq di nga dajeeg moom ëllëg insha allahu te fii lay tàmbali ci àddina loolu lépp nag nan ka bàyyi xel jàmm jàmm jàmm te liggéey ko te wax te fitna sang mi ne képp koo xam ni yaa ngi taal fitna taaloo ko ci kenn si sa bopp pare nga kaa taal kon nag sooke bokk si yenn yi moom sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ala qatli muslimin walaw bi shatri kalima laqiya allaha maktuban bayna aynihi aisun min rahmatillahi nee képp koo xam ne na képp koo xam ne yaa ngi discours ba nga ba nga xam ni dimbali nga nit dimbali nga ci genn wàllu kàddu ku faat ba kenn bu boobaa di nga yàlla ñu bind sa diggante ñaari bët yi sa jëb yi kii de ku naagu si ndar mën a yàlla naagu la si yërmande yàlla moo ne ne yaa kooroo fa dara kon nag laay Modou loolu mooy message bi